Touba teeru ci barke Serigne Touba yal na ko Serigne Fallou teeru yal na ko Serigne Saliou teeru ci barke Seydina yal na ko fi mu gën a fi mu jugee yal na ko gënal fi mu jëm fi yal na koy yóbbu gënal fi mu jógee allahumma yal na koy yàlla yërëm njaga laa ilaaha illa laa